سعد من في دهلا زره زره إن جندا من خياف قد سرى هدى قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسطاني قد جفا طيف الكرى قلت أين مني أين منه من اللقاء من اللقاء سنغال أين موضع أين بيسي من اللقاء من اللقاء سنغال سيدي أحمد سيتاو وبمحمد وبمحمد نلم بدفني نمكل سيدنا محمد وبمحمد واجاك مدينة المنورة وبمحمد الخير البريئة مولد المصطفى في مكة إثنا عشر آه، آه، آه، ولد المصطفى ولد المصطفى ولد المستوى ولد المستوى في مكة إثنا عزر أيوة ñoo ngi leen di ndokkeel ku sopp Muhammadu Rasulillahi defal ni nu màggal ngeen gi mbindeef xayrul anbiyaay jawoo nga neel tasa yaakaare xettali jirim baa nga Medina Alaaji Cerno Mbeng dañu ñëw di la ndokkeel yaag sa waa daayira ak rabana ci darajay kan borom guddi guddi yow ma lus na ini bésu altine la gën a àddina fa màkkatal mukarrama ay waay ay waay mooy sopp dem aljanna moom la Seydi Hadji Malick way ay waay laylal arubati hala durrun fi rajabin summal munaadi yunaadi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim

كتابنا عليه حسابنا وزلنا من أعمالنا وقد هدانا فاسكن لست الذين وصلنا جبال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا كنا من هذا الرجال اللهم اجعلنا قرنا جبالنا وذكركم عنا ومن الآثار وصعبنا كنا منا Ah, Lagi tierno mbeng ñew fi mu dal ni di kërëm ñu wacce fi kaamilu alquran ñaanal ko fi ñaanal kilifa gi mi andal yalla defal ko jamm bo limu bëgg lepp yalla defal ko ko ci barke yonent bi ci barke bis bi yeen president tierno amul senpai pay yalla na yalla fay ngeen da ngeen di mbokam yu ko jappale lepp lu mu ne rek ngeen ne ca kon na yalla yalla guddal fan yi te tiri alaaji Cerno Mbeng nak ñun ñun wa keur serigne Touba dañ ko bëgg ma nga and ak serigne Jili mbacke mu joge Touba ni ma sa waji laal ni nga waxe nu ma meuna def mom lay dalal man ko lol de mom dina ci contant ndax at mu jot fi lay dal ndax dafay jëmm joo xamante ne nunu munu ñu ko baña japp ndax dafa am diine te dafa bëgg réewam mu ngi jàppale nag président Macky Sall moom lay àndal te te wóolu ko yaakaar ko te leer na ma leer yàlla ni bu ko président Macky sàll jàppee fu mu bëgg àgg dana faak ndax sëñ Bay Jaxate dane am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max te président na Thierno Mbengue am na kilifa nun soo aman benn caaxaan du naan ak yow waaye nit ku dëggu nga man li ma gën a neex ci wax naa ko fee léegi mooy lislaami gi alaaji Thierno balaa julli jàpp te du manqué waxtu mu ngi politik na waaye diine ak politique dañoo làng kenn mënta dem bàyyi sa morom moom politique am li mu ko jëlee mooy defar diine rasulullahi ji di ko yokk boole kook di ci dimbali ay bokkam te dañu ne kam xam-xam xel loo ci bok, say bokk te doo leen ci dimbale su bokk a yàqoo yaa ko jiite wërsëg gerte du mooy say bokk ndax tudd nañ ci sëg ba noppi wërsëg kon yal na yàlla defal la jàmm di gërëm nag ki nga xam ne mooy sa mag di sa xarit la bëgg la ko yàlla defal ko ak yalla na ni sëriñ tubaa dimbali borom bis bi di sidil hasim malisi si nga dafa tag rasulullah ba mu juddoo ba ba ni fi joge ñu ngi ñaan ci barkem lo bëgg rek lo somb yalla naag euh, president ñu ngi lay yëgal ni la alaaji terno Mbengue foo ko jàppee foo bëgg àgg di nga loko jappane yokko ko ndax amna kilifa te ay kilifaam am amna fulen diina ji tek kon yalla yalla defal len jamm defal ñu sutura ñu teewaat ko na gën a déwén ku fi teew indi fi febar yalla nga wër ku indi ñak yalla nga am ku nan la gatt fan yalla nga gudd fan ci barkep sama serigne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barke ba ndax mom itam luma def boole ko ci ndax lu mel moma kon nak euh, euh, ñu def ñaan ci serigne Touba waftax la kunta fatiha lisalihin min al xayraati asbil sutori aslih umóori kaasil xóori bilaa kidaay màggu yàlla baax rasulullaay barkeb alquran barkeb maam alaaji malik doole si ahmadou bamba barkeb alaaji fàll ah, ah, ah, wuli dal ولد المصطفى ولد المصطفى في مكة إثنا عشر aywaay ñoo ngi leen di ndokkeel ku sopp Muhammadu Rasulillahi defal ni nu màggal ngën gi mbindéef xayrul anbiyaay jawoo nga neel tasoo yaakaare xetel jirim baa nga medina alaaji Cerno do no ñew di la ndokkeel yak sa waa daayira ak sa kër ak sa njabot ya rabana ci darajay kan borom guddigi yowma lusnaini besu altina la gana adina fa makkatal mukarrama ay way ay way moy sopp dem aljanna mom la Seydi Malik way ay way laylal arubati hal durun fi في رجب ثم المنادي ينادي مسما فاني ku sapp baay Serigne Babacar Sy borom ba ne kaare baaw ay waay Alaaji Malick nee na boo xam Seydina Muhammad Maodo nee na jarul ngay jël avion jarul ngay jël gaal ñu ne baay Alaaji Mansour borom bal xawmi ay waay ku bëgg a xam yoneen Alaaji Malick nee ñi ci kaw jéeri jeeg ñi ci biir géej geeg mbooleem ñi ci jaww ji njogu faama ma tabar sax ku sopp maami Serigne Mansour Mansour borom daara yi maami Cheikh Tidiane si Maktoum nee na boo ñëwee fii ci dëkk bi ma wax la kuy yoneen ñu ne Alaaji Malik mu ne yaa Isal Baare للأصداف عندي أصداف بها درة أحلى من الجلم مودا محمد نور عبد الله سيبة سمن وعبد المناف alaaji Malick nee na maa xam maami yonen waaye maa xam ay bàyyi te ñu ne alaaji Malick mu ne wa abbaasun wa hamzatun wa abu labin ñu ne sidi alaaji mu ne ñaar dong laa cay cité ñu ne Maodo tax mu ne alaaji Malick ne ñaari bàyyi nabi dong dugg ci lislaam ca xam Abbas ak Hamza ñu ne Alaaji Malik bàjjan yo mu ne am na bàjjan mi ñu wax am na Safiyatu am na Atixatu Alaaji Malik nee Umu Salama ñu ne Alaaji Malik mu ne boo ma dégloo ma wax la kan mooy Seyduna Muhammad ay waayi la ka mujizaatun na ñëpp def ne ñu màggal Seyduna Muhammad borom barrière or ba Alaaji Cerno ko xamul yónneen na ko laaj Mawdo waaye ko xamul yónneen la ko laaj Mawdo Alaaji Malik jeexal na téere yi Xaaji Maalik nee na xanaa yëgoon ji waay mooy rasulillahi mooy samsul bariyati moo tax ñu ne Maodo mu ne juróom-ñetti turu nabi ku ko xam sa yàpp yaram araamal na safara Alaaji Maalik ñu ne ko ban ak ban mu ne Muhammad rasulun shafil huda shafiul wara xam nga lu tax mu indi safil wara nee na yawmal jumaatul akbar bu ni tëj dina taxawee ba baay na doom juruma la ndey na doom juruma la yawma yafirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saayibati wa bani ñu ne Maodo mu ne keroo kenn doo ngay jóg rek mu jaam ñi ñu ne ko kan muy ne safihal wara wal kullu siduna Muhammad waaye bala maa daaneel ku sopp sëñ Babacar si neen li ñu màggal Maodo ay waay tuus leen ko tabakku ko yi la am daayi moo ko daan sàjj ko jar moo tax bàmbaay Mawdo Mawdo di Bamba ku sopp borom Touba nel nii ñu màggal ko ndax ñoo bokk maaram sa njili ñoo ngi lay siyaar balay sa buri sa maam Xaadim Rasul nee na ku màggal juddu rasulillahi am nga passeport aljanna ci sa poos ñu ne Bamba bindal mu ne taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati Sëriñ Touba nee na fa man yuxaasimahu lida ku màggal juddu rasulillahi moom mi nga xam ne moo tax nu sàkk ñu ñu ne fa Sëriñ Touba loo ci am mu ne baabil huda yaa ngi Touba nee na leer ga ñu doon xaar ak leer gi ñu wan yoon wi ak leer gi ñu wan kan mooy yàlla leer googu tey la ñëw ñu ba Bamba bindal mu ne nuurun azimun xat yara bii xusuuru xaysara Cheikh Moussa Wa xanaa yëgoon ni sëñ Bamba nee na man kaana fi ummul qura makkata xayrul xurami iwaanu kira sadda ndax Cerno Farimata Amadou Farimata tafsir bu no Ousmane Maodo mati Mbàkke maaram Amadou Farimata maam Balla maam Abibu maam Mor Anta Sali mu jur xaadim rasulillah yi neena diko di jaarale nak ci soppeem bu baax bi di sëñ tierno ak xalifaam bu baax bi ak njabotam gi yeb ak famille bi gis sëriñ bi neena and jayante nak bo gis ci diine neena takaliko tàqali rek mo cey top neena kon nak no and ci deug rek te wóolonte sëñ bi nag ne yàlla nee na fu ñaar nekk di jëf mbir nee na nanu xam ne sunu borom nee na mooy ka di ñetteel te bu ëllëgee loolee nga xam ne mooy jëf ja dana ko rendre compte sunu borom nee na démb sëriñ Maodo waxtaan na ci bu Cheikh Alhaji Abdou nee na wax na moytu jëw ab jullit day julli nee na jëw nag ci fànn yëpp la nee na kon ñu ngi ciy gën a soññ nag sunu mbokku jigéen ñi sëriñ Jili nee na te ñuy muur nag seeni awra ci lépp nag ci karaw gi ba ci tànk yi rek nee na lii fi Cerno sëñ na def nii tey nee na bi ñuy jàng xarmu bi nee na dégg na ah kiko don jang tollu ci allahumma balli sawaba ma qarahnaahu wa nuru ma talawnahu ila akhirih, diw diw diw eske neena fofu na buñ fa tollo ci lañuy ñaanal ki fi joge. nee na doomu aadama nag na nu xam suñu borom daf ko def ci biiru way juróom na ana fan la ne ci biir nekk fu lëndëm. muy naan di ko jox. nee muy naan di ko jox. bu yëngoo mu am coono. bu yëngoo mu am coono. foofa gën a garaaw. nee na foofu moo gën a garaaw de. yàlla di ko suturaal. yàlla di ko suturaal. ba mu génn. mucc. diggante booba nee na diggante booba. ak diggante bii. sëñ bi ne ak diggante bii. nee lu jege la. Mhm. nee kon nag nuy bàyyi xel. te ci biir la nekkoon. te nee na kookee muy wax ci biir la nekkoon de. ki nii ñaanal itam ci biir bàmmeel la ne allahu akbar ne kan kooka lan la gën a soxla nee na mooy lii ko na defal nii tey nee na ndax aaya buñ jàng da koy fekk fa mu ne mu delloo si ko ci jaam bi nee na yow mi ko ñaanoon mu delloo siwaat ko ci yow nee na benn lixlaas rek boo ko defalee nit yokku nga ndax day doon fetalu ñaari ngémmiñ da koy fetal mu fayeeku sëriñ bi nee na kon li Ceerno def nag nee diine la nee ndax moom la gis moo ko sàkku nee kilifa yu bari ñu mel ni ñoom yàlla tollale na leen ku àggul fu ku àggul fu mu toll te dunu dawlu yi nee na way dawlu yi nag fàttaliku leen baax na nee na mooy lu mel ni di bay ay armeel baax na di wàcc lu mel ni wàcce kaamil nee na ñoom ñii de xatoon nañu ki leen woowoon ci leneen itam bu leen président woon ci leneen lu dul diine nee na ah danañu rus président Thierno de waaye danañ ko ne nag ci fulla ah nañu yeewee ko lay mbàkke waaye nag bu ñu bu ñu woowee ci diine bu ko defoon téeméeri kaamil ah seen jiili ne waa kees dañu leen di ñàkk ndax danañ ko xaar ndeysaan nee na diine daal mooy li nga ne leen du rot rotloo ci dëkk bi nee na ren ji mooy fukkeelu édition am ak juróom benn yoo xam ne du gàmmoo Tuuba ndeysaan Tiwaawan gii lay gàmmu te moom mii de ku ne xam na ni xalif général di murit njaareem la gàmmu woote gàmmu ga ne fekk leen ma fa waaye nee na moom sëñ jiili de jeexantalu burdu ak dallu gi nee na yiw la cin la lu nu togg allahu akbar ba noppi ne dadul bëgg na ku ko ëppale ci cin li nee na liggéey yu mag ñi nag neena na Seydi Hadji Malick wax na démb ne. dañoo togg bàyyi. dañoo togg bàyyi ñu bàyyil ñu fi. ah ku sàggan. dalal ko. wala nga xamal ko nag. neena bu sëñ bi ne yàlla buñ ko dalal. wala nag ñu xamal cin li. ndax Maodo dana togg. togg. ak tàngal. lu gën a yomb. am ku ne ko ah mag si tàngal. mu ne ko juum nga de. ndax mën ngaa tàngal. xamal oh. lay lay mu ne ko yu mag ñi noonu la mel. nee na président Thierno nag li ñu dégg mu wax suba. daare Cheikh Hadji Abdou la jànge foofa nag ku fa génne. wala ñu defara la fa. ah noo mën a def defaree defaru. nee na ndax moom mi ngi ko nattee. ci sëñ Abdou Aziz Kébé. Mhm. nee na mi commissaire au pèlerinage. nee ñoom ñii dañuy daje Màkka. waaye bu nu ko gisee nin ko dégg ni mu amee pouvoir ak ni mu ko woyofale ak ni mu amee taalibe ñu ne ko fii la génne ay waay moo xam ne loolu rek mën a nekk nee na nag di occasionné wu ci jotaay bi ñuy ñaan bi ñuy ñaan ñaanal nañu way dawlu yëpp waaye nee na li ko gën a bégloo ci alquran ji nee na mooy daara ji di kër gi biñ fi wootee kaamil bi. occasion wu na ba ñëw. profité na ci. nee na ndax lu mu waroon a def tey la. ngeen faf ko nag du ko yóbbaale géew ci yëf yi. sëñ bi ne kon nag ñaanal nañu. ki ngeen yéene. waaye nee na moom de profité na ci. defaat beneen kaamil. ci biir kaamil bi. ñaanal waajuram al amin oh. ndeysaan di seereel seen Cerno ci loo xam ne sëñ Moustapha mii da koy fekkee. ci loo xam ne seex Moustapha mii da ko fekkee. am naa seexul xaddim. nee na moom am na seexul xaddim. am naa soxna jaara. am na soxna jaara. am na seex Saalixu. am na seex Murtada. am na seex Murtada. waaye lu mu amaat ci at mi. waaye lu mu amaat ci at mii. bu dee jigéen sax. siñoor lay tudd al amin. la ilaha illallah. ndax dama ko ko waxoon ci dundam. nee na ndax da ko ko waxoon ci dundam. mu ne ma maa mu ne ko maa koy te boo ko amee. te lu war ci moom. mbàkke maa ko cay def. te amul lu ca deñ. ndeysaan nee na su ko tuddoon. tiimale ko ca barab ba sax. nee na dana gëm ne tur wa sëñ Amin jot na ca. ndeysaan oh. na suuf waa Touba itam da leen wax ne. xew-xew bu ma mën a am. ba muy juróom benn at. al amin laa koy tudda de ndeysaan na moo ne woon buntam ci Tiwaawan ci moom la tàmbalee ci moom itam lay yem lu may seet su muy seet ci maamam Seydi Hadji Malick nee na da koy natt ci moom nee na ndax bés ba mu koy njëkk a natt ci moom sëriñ bi ne dafa ne ko bu ma àggee su ma recevoir danaa xam ne moom la su ma ko gisul ma xam ne du moom oh nee mu jub ko ak mbooloo mi ma àndal sëñ bi ne nañ ko dalal ci kaw te booba xamul xaw xamu ko allahu akbar nee na mu fekk ko fa ne ko li ngay seet mbàkke ci sëñ baabakar di ko seet ci sa baay yéene ko sa fase ko kees wallaahi moo ma ne man mii la nee mu doon ne ko njureel nag ñaar la si jur gi mu ko woy juram jur ci geño denc nañ ko ci biir suuf loola moom fàdduna na wër na ci Sénégal kenn doyatu ko ci Sénégal ci baay ku dul yow nangul ma bés ni tey man seen jiili yaay sama baay duniyaa wal uxraaya laa ilaaha illallaah mu ne ma may ma ma seet ko ne néew ko nangul naa la ko de may muy dem di ñëw ba mu ne ma seet naa ko nangu naa ko Mbàkke woo mu sëñ Moustapha doomam jàpp ci loxoom jàpp ci loxoom ne yéen a bokk baay kon yéen nag yem naa foofa asalaamaaleykum. ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nekk Euh, Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane di teg ki nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général di murit di nuyu xalifa général nekk ci Sénégal gi yëpp di sant yàlla bu baax ci gàmm gi nga xam ni yàlla fekkaloon nañu ko ren muy 2018 ah ñu di ko defee fii ci sama kër mag Maodo mbeng ànd ko ay kilifa yu am solo yoo xam ni. gàmm gu nekk dañ ko doon gàmmoonoo ak ñoom waaye comme ni ko oustaz waxee leen gàmm gi dafa àllaa dawme loolu mooy li am ndax ci jataay bii rek sëtu sëñ Touba mi ngi fii toog ñu koy wax sëñ Jili Mbàkke mu bàyyi ko ba tuubaa ñëw fii pour ànd ak ñun màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mën nañu am rafet njortu ni ah gàmm gi day am nañ ci yaakaar kon ñu ngi nuyu sëñ Jili bu baax. diko siaré diko jox waccu wayam diko ñaan yalla mo am fan guddu and ak biir ñu yag fe dajé di nuyu Cheikh mustapha jaay mu señ Abo mu señ fallu Cheikh mustapha jaay wax naa ko sànq bi ñew fi ci kër gi di fi dal bobo melni kër gi man ak mom rek ño fi dal ak mawdo bobo du tay ay ati ati ati at la ba suñu joon mustapha yi fi Cheikh mustapha ñi nga ñaan yalla wëra sa cër guddal sa fan yow nit ku baax nga dom sama fami yëpp la xam léegi fi lañ doon bu ñu dem kër gu magga ànd wër fu ne ci sama mbokk yi ba gaa mi ngi tax ñu ànd ànduwaal ñibbi Ndakaaru ñu ngi lay sant baax di la gërëm di ñaan yàlla guddal a fan di nuy suma xalifa Amadou Mbeng Amadou ñun waa Mbengeen mooy sunu xalifa mu ngi nii toog tey di kilifa ca kër ga boot na ñun ñëpp wante tey amul dara dara loo xam ne si Mbengeen jooy na ko ndax Amadou parce que dañoo boot daf nekk sunu papa waaye nekk sunu mag waaye nekk suñu xalifa nekk suñu lépp lépp lu waay soxla rek tey bu nekkee ci àll bi amuñu benn jafe-jafe xalaatuñu kajoor xalaatuñu dara yàlla ak amadu la ndax lu fa waaye bëgg mu taxawal la ca lu fa waay manqué mu mottali la ko fa donc Amadou ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan wéral sa cër ci sa taxawaay. sant aussi rak sama rakk yi bu baax ndax it ñoom it wax dëgg yàlla ay rakk lañ yoo xam ne sii sës nañ ci man rek sa rëkkewuñu tey lu ma bëgg dinaa leen ko sant te duñu ci teg baat mu ñe nekk ca Kajoor ak ñe nekk ca dakaar kon maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm sant alaaji Malick Mbay bu baax alaaji Malick euh, li wala fi di wax ne mbokk ba gis am na xarit moo dal sama diggante ak alaaji Malick sama xarit la waaye sama lépp la alaaji Malick ñu ngi leen sant ndax ku ne xam na ni tey jii moom ma nga dal fële ca monument ba ak seen waa dëkk léegi dafa doon wacce kamil waye daf ni mako fu kamil bi pare dina ñew nam ko waxe non la def and ak seigne Mbay mi nga xamni ni rakam di doomu bayam ñu bokk benn papa waye ñom ñu mel ci man melakan wo xamni ni me sama kër Kajoor dara du fa lo xamni si lu fa xew su ko yëgee kenn du ko yëgaat day tak saretam jël alalam jël ay xalem di jox maga na ko foo bëggee yónni yónnee fa nit ku bax la muudu ñi ngi ñaan yalla guddal sa fan cër alaaji mu ñu la fay yow ni nga sama digënté yow dal dama lay ñaan yalla rek yalla sam la ar la guddal sa fan donc job mi nga xamne ne moom la soirée mi ah yalla fa dogal muy sama genn wal di sama nit nek ci marché au poisson ba waye di ko loxoom set ndax tay directeur ma central au poisson mom la denk lepp luy contrôle général ci bir marché bi koku duñ ko jox ku tiaxan waye mu wuññeekuwaat nag tafaat sama wet ni ma lépp loo nekk maa nga ci lolo fu muy jëm damay and ak mom ñi ngi ñaan deugural ci reum ah te guddal fanam bu baax a baax a baax sant alaaji fàllu Touré mii bu baax moom tamit ndax it lépp lu ma xew le moo fay jiitu moom alaaji Fallou moo nekk ci bureau ba ku fa ñëwul moo ma fekkul moom fa fay fekk sëñ Fallou ñu ngi lay gërëm di la di la ñaan yàlla guddal sa fan wér si jër oustaz Mbodj yow mun ñu la fay ndax te ma toog fii rek yàlla xam na ne xaw ma woon ni sax yëg nga ni agsi nañ ci ci kër gi dama toog sama xel ne ci yow boobu ba léegi rek te gisuma la ndax man fu ñuy jataayee rek sama xel lay nekk ci boo ko jógee bàyyi sa lépp daw ñëw oustaz ndax fii ñu koy gis nii tey macha allah moog oustaz Alioune Sall ñu doon jànganoo def na màkk fukki at ak ñaar jàng na ko màkk téere bu waaye li yëru koy bind rek mu ngi ci dënam bii mu kii ko moom oustaz Mbodj mii waaw. waaye fal boppam lu Alaaji Malik bind lu Serigne Touba bind lu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani bind lépp mi ngi ko daan toog fii moom mu teewoon fii guddi gi ba ba set foo ko ubbil mu fekk la foofu moom oustaz moom oustaz Mbodj mii def na màkk fukki at ak ñaar. nit ku baax la woyof moom topp ci ginnaaw Cheikh Moustapha mi nga xam ne liggéey Serigne Touba fu Cheikh Moustapha jëm mu topp ci ginnaawam ndax xam nga Cheikh Moustapha tànk yi muy dox day tànk yoo xam ni ndax tuubal benn jullit képp ku ne xam na ni kenn xamul tuyaab nu mu toll te tey su ma jumul mi ngi ci juróom benn fukk nangam yoo xam ne bu nga dina islaam laay asim kuy tox wala ngay naan sàngara su la ñaan leen nga bàyyi wax dëgg yàlla sama xale yi nag fi sama doom yi dañ may wax anas ceex bi ndax ñëwagul ndax ñëwagul na ndax heure bi ñëwee di leen ñaar seen njàng te su leen ñaalee gis nañ bu baax lañ cey gis di sant aussi sama mag Maodo Maodo mun ma ko fay ndax dafa jël léppam jox ma kër gi su ma ñëwee mun ma bañ sant jabaru Maodo yi sëy na bu mooy aw Maodo sëy na bu Njaay bu ma ñëwee lépp lu ma bëgg suba ba ngoon dañuy gis nga nii fii yëpp seen appartement la dañuy génn fay bëgg dugal mook Ayda Diop mi nga xam ne Ayda Diop mi nga xam ni mooy ñaareelu Maodo di nit ñu bax dara du manki ci kër gi lu way soxla rek ba leen laajee sant doom yi ñoom ya dabaa ngi fi ñom ma abdou xalé yi dañuy xaar rek ma yëkkat sama kaddu bañ daw ci yonenti bobu parce que seen papa mo leen nampatal ci man ñu nangoo top sama ginaaw kon ma ngi ñaan aussi xalé yi tamit jang yalla dimbal leen seen jang yalla defal leen ñu nekk ay diplômé di ay mag ñu am ñam ñu ngi leen sante bu baax wa kër mawdo ndax njabot gi bu ñëwé rek gamu jëlé yakamte ñëw te ñom tam bu ñu fi xatalan bu déwénee ñi ñëw duñ sawara a ñëw kon euh, Seyna bu ñu ngi leen di sant di sant Aïda jóob di sant waa Kër Maodo yëpp di sant aussi ñi nga xam ni moom lañ àndal ñëw fii mu jigéen ñi comme ni ko kii waxee sànq ah Maguette Gueye moo am laa àndal fii ak sama secrétaire Ami Diagne ak sama soxna ah, Astou Diouf ak ñi ñu àndal ñëpp soxna Mor Sall ma jëm bu sax mu ngi fi sama xarit ak waa këram Mor Sall mi ngi ci yoon bi ñëw ànd ak ñoom Ibrahima ñoom ñëpp fii la ñuy dal ñu ngi ñëw waa fii la ñuy dal ndax euh, gàmm gi comme ni ko kii waxee dafa ala doome ndax gàmm gi dafa day altine suñu dajeeg àddina nag ñu jàng fi kaamil alxuraan sëtu Serigne Touba toog muy sëñ jili jàpp naa ne lu fi waaye fas tey bu ñu yëkkati jotaay bi sëñ jili dafee dog bi yaakaar naa lépp dina saafarawu Cheikh Moustapha Diagne toog fi yàgg fee toog it nag tey dama lay wax toujours ni leen Cheikh Moustapha xamu leen ko waaye nit la koo xam ne ah suñu borom dimbali na ko ci yu baree bari kon Cheikh Moustapha duñ mën lu may sant la gërëm la di wax nag maa ngi sant presse bi nga xam ne moom laa jàkkaarool muy Mbour TV ndax Mbour TV tey presse la boo xam ne tey ah suma xarit Ndiaye Diatta nekk fa vraiment ndax nit ki àdduna bi lépp looy def ci amul communication aussi du am njariñ mais ñoom seen loxo dafa set seen i communication set leer lépp lu waaye def ñu partagé la ko ba àdduna sépp mën cee jot kon waa Mbour TV maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla Mbour TV bi nekk télévision nationale boo xam ne àdduna sépp ñoo koy seetaan ndax seen i seen i yaru nañu baax nañu seen liggéey seet na rafet na comme te sëriñ bi xam naa moom dafa war a dem tey Thiès seeti sëñ Cheikh euh, sëriñ Saliou Touré ah damay wàcc sama kàddu foofu sant xale yu baax xale yi doon wàcc alxuraan bi ndax ay xale yu ndaw lañ dëkk ca dëkk ba ki doon jàng xat mi bi sama doom la ah, ak xale yi mu àndal yëpp ay moroom ñaan yàlla def leen ay mag yu am ñam sant leen ñoom ñëpp gërëm leen daaru xam naa su ma santee jigéen ñi mami sant sama xarit mami mi nga xam ne mooy rek ataay ji ndax moom ña ngi la sant ak affaire lekk rek laa ko dénk ataay ji ak kafe gi mbur mi moom moo ko yore wax dëgg yàlla di sant ñi ñu àndal ñi ñëpp ndax amuñu benn sant aussi màgget ak jigéen ñoom ñi àndal ndax dafay indi ñoom maire yoo xam ni lépp lu jëm ci wàllu togg gi ñu ngi ci kaw ñoom ñoo yore togg gi ak lépp dara manqué wul lu ñu soxla rek daañu ñu ko toggal tegal ñu ko te buñ ci xéwloo dañuy kontaan kon ma ngi ñaan yalla dal ñu fekk ay déwén yu bare bare di ñaan yalla gam gi yalla bu mu nek suñu mujj gi gam di ñaan yalla nawet bi yalla ko yalla barkeel li ci ñor ñu murlo ko di ñaan yalla euh, Serigne mbay si Mansour yalla na yalla guddal fanam wëral ay cëram di ñaanal aussi suñu président le président Macky Sall aussi yalla may ko ñaarelu mandat 2019 bi ñu jëm bëgg na sëñ jili nga fasal ñu loolu ci ñaan gi président sumbu yi mu sumbu ci Sénégal yalla may ko ñaarelu mandat bu sédd guuy ba mëna aggalé sumbu yi mu sumbu maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm jërë geen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Jili Mbàkke ah sët Serigne Touba bu toogee fii tey ci Tiwaawan ku ne xaman sañ jili ni mu mel ak digganteem ak sëriñ Abdou Aziz Al Amin ñoom ñaar benn la woon ndax ku ne xam na ni dafa joxoon boppam sëriñ Abdou Aziz Al Amin mu nekk baayam ku ne xam ne tey bu toogee fii tey nekk sëriñ sët Serigne Touba ni président Macky Sall jotaat na ci ñaareelu mandaam kon sañ jili ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ni amin amin amin jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw nee na tax wax ko. dina juru soxnaam. dëgg la jërëjëf. ndax soxnaam diine rek. dëgg la dëgg la jërëjëf. jërëjëf. tàllal leen loxo yi. ngeen dugal ci aada yi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب الله من كل كريم أكرم من أمه خادله تكرم أسلم له كل كان إيماني ولا سم الإحسان لرحمن واجعل بشكر بلا كفران كفر شاب معانرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتخدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبالغنا بها أصل الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم انصر من نصر الدين واخسر من خسر المسلمين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 من خياف قد سرى هذا قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسطاني قد جفا طيف الكرى قلت أين مني أين منه من اللقاء نسي من اللقاء من اللقاء سيدي